ne ah li ak li dégg na ko ndax lii am na su dee am na ñu leeral ko su amul it ñu ne ndax amul ñu leeral Sénégalais yi. aju bi li mu wax moom c'est un bon français dafa poser avez-vous su fekkee ne am na nga wax wala nangam donc dafa poser question dafa laajte laajte boobu nag gisuma lan moo war a tax nit laajte te fii def naa question bu nekk posé nañ ko fi Sénégal. accusation bu nekk def nañ ko te ñooñu accusé kenn woowul leen si leneen ak leneen ki laajte lu tax ñu koy woo di ko téye est-ce que waruñu xool ñi ñi nous ñu su dé suñu institution yi ñoo fi ñi ñi ñoo ñu ndax wax c'est avéré ou pas ki nga xamné nak mo ñu téé ko lolu ci xoxatal la té du lo xamné respect procédure la lolu ñong koy wax encore une fois amul lenn lu mu affirmer amul lenn interrogation la question la bo xamné n'importe qui d'entre nous mën n'y poser amul que it amul famu que fa

mais nag nañ fexewaat tëggaat suñu institution noo xam ne justice beeg police ak yëpp mën a am seen indépendance mën agir en conséquence ni ñu war a doxalee. li ñu namm nag mooy dinañ dem jusqu'au bout suñu combat dinañ ci dem jusqu'au bout mooy lu mu laaj si xeex si lépp dinañ ko def incha allah xeex bi nag du lenn lu dul xeex pour njëriñu Sénégal.